anta alladi allamta luqmaan al xikam waliyahab bil mustafa xayra siyam mbokk yi ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew yépp ginnaaw bi ñu sante suñu borom tabaraka wa taala julli ci sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu waaye di ñaanal cheikh muhammadul muntaxa al xalifatul am yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wéral ko te mottali ay naalam mbokk yi seen émission bu am solo bi nga xam ne moom lañ amaloon a yéen mu jëm ci wàllu yaru ak yare yaru ak yare nag di émission boo xam ne C3S mi ngi ci ànd ak yéen muy compagnie El Hadj Serigne Seck waaye di ci ànd ak borom xam-xam muy Serigne Makhtar Kebe moom Cheikh Salihou Mbacké ñu wuutu fi nag suñu xarit suñu wëllëre nga xam ne émission bi moo ko waroon a taxaw muy Serigne Mbacké Sourang waaye am ngant tax ñu wuutu ko fi sëñ Mbacké ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la ñaan nga di la ñaanal jàmm ba nga dellu siwaat fii continue liggéey bi incha allahu taala Serigne Makhtar ñu ngi woon ci aqi dëkkandoo muy numéro bu njëkk ba ñu njëkkoon jàll. bii nag ñu war ko continuer waat waaye laataa ñuy dugg ci yooyu yëpp dañ lay bàyyi nga nuyoo waat di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Omar Silla. maa ngi lay bu baax di la ziare. di nuyu waa émission yaru ak yare. góor jigéen mag ak ndaw. Mhm. fi mu mhm. nuyoo bi ak ziar bi nag ci kilifa yi eh, réew mi. Mhm. jiital ci cheikh Mouhamadul Mountakha. yàlla na fi yàlla yàggal te ko. ak njabootu sëriñ Touba gépp waaye teg ci kilifa yi diine yëpp nag ak penc muñ mën a nekk. Mhm. bëgg bokk fu ñu jëm bokk luñ fay wuti moo nu boole. Mhm. tàmbalee ci nuyoo bi it ak ziar bi ci wàllu kër gi ñu nekk di seet waa ses Alaaji Sëriñ Seck Sëriñ Fallou Seck Sëriñ Daam ak Sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy taxaw liggéey bi. Mhm. di nuyu di siyaare sunu mbokk sunu xarit Sëriñ Mbàkke Sourang mi nga xam ne fii nga toog tey. moom lañ daan seqal lu mel nii. yow ñu seq ak yow leneen. tey nag lépp tege ci sa loxo. ndax ni yeneen itte yi nga xam ne ca la ne kon nag muy émission boo xam ne rek mbokki daara ñoo ko seq bëgg jub ak jubal moo tax émission bee jóg asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Maxtaar yaakaar naa émission bañ tàmbalee woon tuddoon nañ ci lan mooy jëmmi dëkkandoo ak alxuraan lim ci wax dénkaane ko ci nga xam ne defoon nañ tamhid bi mooy introduction bi sëñ Maxtaar àq yi nag yan ak yan la àq yi nga xam ne lu yaatoo yaatu la bañ ci doon dikkal lan lan nga ñuy wax. Cheikh la ta bari waaye am na ci yoo xam ne mooy asasiyaat yi yi nga xam ne mooy fondamentaux yi boo ko xasee ba wax la ci des lépp day daal di yomb a dégg bokk na ci rafetu dëkk nit ak kamu dëkkal ngeen di nuyoonte asalaamaaleykum ak waaleykum salaam day dindi aw ay. ci diggante ñaar ñu ko waxante waaye dafay jëmbat jàmm biñ seetoo suñ societé bi nga xam ne ci lañ nekk li ëpp ci dëkkandoo yi dañuy rombante kenn xamu ci sa sant moroom ça va mu jeex kenn du ci jàmm sant ak sa moroom kenn du ci saafante ak sa moroom li ci baree bari loolu jur na benn xayaat ya muy dundu mala xar sax fi ne boo ko amoon tam muus xar muy door a ñëw ci ay xar danañ nuyoo. Hmm. men xar mi dana jël lex bi teg ko ci men meneen xar mi. te ay mara lañ. waaw sàmmkat yi xam nañ li ma wax. ginnaaw ñoom ñooy nuyoo noonu te mënuñoo wax. Hmm. kon ñoom bu ñu mënoon wax danañ wax asalaamaaleykum. allahu akbar bu ñu mënoon yëkkati seen tànk yet danañu saafaxante. Hmm. moo tax Cheikhul Xadim naan. thumma al musaafaxatu bil yadayni min jumlati al adabi mithla dayni. asalaamaaleykum. wa aleykum salaam joxante loxo. ci sa ñaari loxo. nga dëgëral sa loxo ci loxoom ay teggin la. macha allah su ay teggin la nag ab yar la saa ko aw xeet tàmbalee manqué ñi ngi manqué ab yar te saa yuñ ab yar ñi ngi perte ay valeur benn ngoog ci aq yi muy asalaamaaleykum sunna la mhm. wa aleykum salaam farata la la wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha fa xayu bi mooy feenu amar mhm. bu suñ borom ne fa xayu kon yow mii delloo nuyoo la nuyooloo mhm. kii nuyoo suñ borom néew ku nga nuyoo sunna la kon ku ne asalaamaaleykum ci biiru mbooloo waaleykum salaam diñ koy wax farata la ndax fa xayyoo bi ahsana minha aw rudduha delloo leen bu gën a rafet wala ngeen delloo bu na mel nga xam ne foofu jàngale wala na fa ihsan bi ahsana minha bi ahsana minha mhm. aw rudduha sax wala ngeen delloo nafsu salaam maam lañ leen waxoon ngeen ne waaleykum salaam ma nga ne waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu mhm. kon loolu bokk na ci li tax nit nitee mhm. benn borom xam-xam ki romb aw nit bañ leen a nuyu dem bu amoon arrêt cardiaque urgence est-ce que xamul na ñooñu mu doon bañ a nuyu ñooy tëb tatafu ko. ñooy def ay pexe sauver ko. ñoo koy utal taxi même bu faatu woon sax ñoom ñoo koy yóbbu ca morgue ba. wallaahi ndeysaan kon romb aw nit di nongu nongi mhm. bañ leen a nuyu dëdul ak nitee mais en même temps nag mën nga cee am ay circonstances yoo xam ne dafay coûter cher. ndax bi nga leen bañee nuyoo ne caa wàccu wala nga ne dara daanu. buñ nee bu lay buñ lay yëkkati xanaa du leen asalaamaaleykum. allah kon benn ngoog. Mhm. muy nuyoo. Mhm. feeg ñi ngi koy def nag. cofan cofeel dana am suñu diggante. mooy la nga wax ci émission bële dëkkandoo jàmm ci gën ndax bis du ñàkk. bis du ñàkk dëgg la. yonent bi sax na al al mu'minu ilfun ma'lufun laa xayra fi man laa ya'lifu wala yu'lafu. allahu akbar ab julit soppe lay doon boo xam ne dañ koy miin muy mhm, miine mhm. waaye koo xam ne bis boo ko gisee mu gën a raar mhm. bis boo ko gisee mu gën a tëju bis boo ko gisee mu mel ni ku lay gën a daw koo kooku nekkul ilful maluuf beneen xadis bi nag al muminu miraatul mumin jullit bu nekk seetu nga ci sa morom la bu ngeen jàkkaarloo seetlul li lii la kii gën a rafetle nga roy ko ca li nga doon def te ñaawal ko te kii xam ne da koo ñaawal nga dindi ko li nga xam ne boo taxawee ci kanamu seetu taas bu nekk sa kanam mbaa ab weex-weex da ngay fexe ba mu dañ. dëgg la kon jullit dafay yokk moroomum jullitam taar dafay fegul moroomum jullitam ab ñaawaay. Mhm. bokk na ca yokkub taar asalaamaaleykum. Mhm. ñaareelu tomb ba Cheikh Omar. Mhm. waxoon nañ ko ci njëlbeen ga waaye day répété wu waat. muy bañ a lor kenn martaba mu suufee la waaye nag àq la. waaye jëriñ kenn nag mooy martaba mu am ma solo. ku ñuy wax Emmanuel Kant. al aalimu al almaani yi mhm. kant borom xam bari xam nañ ko mhm. daf ne kuy dund ak nit bokkul ñu ne ko kuy dund mooy kan mu ne koo xam ne bu xase noo wokkutu bu xiifee lekk bu maree naan bu bëggee tëdd tëdd bu bëggee dem fenn solo bu tilimee sangu kooku mooy kuy dund ñu ne ko kuy nit nag mu ne kuy nit mooy ku yëg sa moroom allahu akbar ku yëg ne nit kii li may metti mën na koo metti mhm. li may bégloo mën na koo bégloo li may kontaanloo mën na koo kontaanloo su ma ko jokkee dana bég nee na kooku mooy nit li ci des nag kuy dund ak nit bokkul allahu kon li mu wax mhm. baax barakallahu sama xel dafa dem ci xadis ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne laa yuminu ahadukum xataa mhm. yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi jàlloon na ci sunu émission bee dama ne la sëñ bi loolu yaatu na de waaw xataa yuhibba li axihi maa yuhibbu li dañ ne nit du yéene boppam ab safaan rek kon looy bëgg teg nit xolal boo ko tegoon sa bopp ni muy mel. waaw nit du yéene ba da bopp nga ne yow. bëgg ko si ñu la bëgg ko ci kee. kenn mosut a a yaatu sax mhm. daa bëgg boppam ba bëgg boppam. lu loolu boo ko doon suñ euh, sara suñ maxtaar loo ñuy wax. nit daa bëgg boppam en tant que jëmm ji nii. Mhm. mais daa bëgg bopp bii nga xam ne tey nit bu ñu ko doon dóor dara. Mhm. mu koy mu mu mu mën a jëm ci bopp bi. loxo yee dagg rek mu doon agsi ci bopp waaye bu dee wallaay ndax cër bi mu jox bopp waaw tënk bi émission bi moo ko dul <laughs> allahu akbar masha allah masha allah day gàtt mhm. kon benn bi mooy nga fa fegul sa moroom mhm. lor benn la ci mhm. waaye nga jariñ koo gën hmm. man kat suñ Omar laa dëkkal maxtaar kebe ngi ci ay situation xaaral ma tegtal ko loo xam ne bu ko defee situation yu compliqué yi dina daj kooku moo xam da nga koy tegtal ca banque ba moo xam da nga koy yóbbu ca commerçant ba moo xam da koy dimbali sa alali bopp moo xam da nga koy jox ab liggéey bu mën di xëy di mos dara ndax dañ ne badala an tuutiyahu samakatan alimu kay la wala yegg naa ko bis seen nga ñëw ma mhm. mu dem bu mënee napp bis seen mu wuti jën te bu mhm. munta ko jën nga jox ko jën dëgg la léegi nag su boobaa kon bokk na ci àq yooyu mhm. nit ki nga di ko jariñ ci lépp luy njariñ boo dee jàng nga jàngal ko boo ko mënta jàngal nga tegtal ko ko jàngal mhm. bu dëngee nga jubbanti ko yonent bi sax unsur axaaka zaliman aw mazluman ñu ne ko buñ ko tooñee moom xam nañ buñ bu tooñee nag ñu ne ko nga ne ko tooñ baaxul sax baax na mhm. nit nga xam ne ko nag dese wërta tooñ mhm. neen loolu sax ndimbal la kon ba bokk na ci àq yi nga fegul ko sa lor waaye daa bokk ci àq yi nga di ko jox say njëriñ joxe njëriñ nag lu yaatoo yaatu dëgg la am nga liggéey kii amatub liggéey su liggéeyee sab liggéey dana am lu mu lu mu fayoo nga liggéey doo ko tegtal ko koo xam ne bu fa demee dana fa am ajom dana fa faju mhm. ba tey loolu la mhm. naka noonu la mel ci àq yi nga xam ne day dox diggante nit ak nit nemmi konte bu njëkk mag ñi dañ daan takk diggante dëkk ak dëkk ndeysaan fas lañ daan war mhm. gone topp ci ginnaawam yor gafakaga ak jéng ba muy daw ay kilomètres yi di daw ay weeri weer yàlla ak bëgg a seeti mbokkam nuyu ko allahu akbar trois mois aller trois mois retour diggante kajoor ak njaambur doxees na ko ba tàyyi ndax booba dox di tër tër tër tërlu wallaay ndeysaan ak di yendu fenn moo amoon wallaay wallaay léeg-léeg sa tànk lay doon mhm. borom daraja ji mooy am façon mu koy defee mm. bañ demee ba yàgg warukaay yi léegi tudd sareet mhm. ñu dem ba yàgg voiture ñëw fa mhm. ñu dem ba yàgg wata ñëw fa ñu dem ba yàgg téléphone ñëw fa toog dong woo sa mbokk ne mbaa jàmm nga fanaan kon wasaa'il yi mën a jokkee mbokk bari na fi mu ne kon. wasaa'il mutaqaddima wa musaxara lil gaaya. macha allah. dañ ko dafa am avancement ba noppi ñu tàggatal na ko. dëgg la tëdd ki sa kaw lal bu la neexee sax sa mbàjj doo ko dindi. Mm-hmm. jot sa mbokk mu xam li nga fanaanoo mu xam nga xam lim fanaanoo. allahu akbar nga xam lim yendoo mu xam li nga yendoo. te mënoo ko allahu akbar jël téléphone bi rek mënatoo ko. dëgg la. kon bu ñu la nattee ci mag mi daan def trois mois aller trois mois retour. sore ngeen lool. ko bokk na ci mm-hmm. sa mbokk. Mm-hmm. dañ ne ci àq dëkk yi la bokk. waaw Olof Njaay nee na ku sam xel gudd say tànk dëng. ku sam xel gudd say tànk dëng. saw doxin yeex. est-ce que. ku sam xel gudd koo romb ne ah xaar mu jar sëñ Omar xaar mu jar sëñ Mbàkke xaar mu jar sëñ Moustapha tànk yi dëng na ku sam xel gàtt na da ngay jóg rek romb ñëpp sa xëpp ñëpp suuf dem fa ngay dem daal di àgg. Hmm. kon ku sam xel gudd rek say tànk dëng saw doxin yeex dëgg la am na ci yu bari yoo xam ne nit dañ koy def mhm. xel mu gàtt képp la koy defee wallaahi mën naa ne naan faaliwu ma kenn waaye bu ko bu yëkkatee benn loo xam ne faaliwu ma kenn bokk na ca mhm. nemmi ko mhm. sa mbokk xam ci lu mu nekk boo ko mënut nga jël sa téléphone xam ci lu mu nekk maa ngi dañ daan dem ab diir dëkk bañ dem bu ñuy dem dañuy yóbbaale leetar yi waa dëkk bañ jógee suñuy ñibbisi dañuy àndaale lettre waa dëkk ba ñu mhm. kenn ku ne nga dem ci moom ne ko diw nuyu na la mi ngi ci jàmm moo la jox lettre bi mhm. tey nag lépp mën nga koo lijjanti ci benn cinq minutes mhm. xam ca kooka bu la neexee sax nga jot ko nga koy gis ma lay gis bu woppee nga xam ko bu wéree nga xam ko mooy lan téléphone yi léegi da lay wan jëmmi da ngay jokkool dëgg la donte na gisantewu leen ci donte gisantewu leen da caa bokk itam moo tax yonent bi saa sallam ba ne laa yuminu laa yuminu laa yuminu ñetti yoon mhm. ñu ne ko kan la mu ne ku fanaane ab reggaay sa morom sa mbokk fanaane xiif hmm? amoo kamaalul iman kon sëñ Maxtaar man mi yor uh, am lu ma yor ah. mën caa lekk ak sama njaboot mhm. sama dëkkandoo mu leer ma ne sama dëkkandoo bi tey amul lu mhm. man denc gi ma koy denc bàyyi ko foofu mu tëdd maa aamana bii hmm. man maata shabaanan wa jaaruhu ila janbihi allahu akbar allahu akbar sëñ ma taal firil ñu bi gëmul li ma indi gëmul li yonentu yàlla muhammad indi ki nga xam ne muy kan daa fanaane ab reggaay hmm. kim dendal kër fanaane ab xiif allahu akbar allahu akbar kon faj ay aajo hmm. bi ci gën a rëy hmm. mooy nga tabbal ci biiru ko xiif ñam dëgg la léegi nag da nga gis koo xam ne frigidaire a nga fees dell ak ndawal oh. ba ca des fees dell ak ay fruits beneen port ba fees dell ak ay jus. oh. gone ya lekk bay tasaaree kay wocc mm-hmm. dëkkandoo ja fanaan xiif ba bët set te bu xëyee dem ca jàkk ja lu mu fay wuti moo tax Cheikh Abdul Qadir Jeylaani moo fi mas def discours bu gàtt radiyallahu anhu boo xam ne ginnaawam nag gisaa naa keneen ko def discours bu gàtt ne moom te kii gën koo gàttale waaye li ma gën a itteel mooy bu Cheikh Abdul Qadir Jeylaani bi mm-hmm. radiyallahu anhu mm-hmm. dafa taxaw ci miin bar bi ne leen na ngeen xam ne tàbbal aw ñam ci biiru ko xiif moo gën tabax junni jàkka wasalaam ñëw leen julli hmm. da teg ne nag moo gën nga wodd kaaba ga ak loo ko ak loo ko mën a wodde tàbbal ñam ci biiru ko xiif moo gën tabax junni jàkka allahu akbar moo gën fekk baytullaahil xaraam nga wodd ko kaaba ga nga wodd ko daan ne wasalaam ñëw leen ñu julli sëñ Maxtaar foofu nag dinaa fa dugal laaj mm-hmm. kon man mii nga xam ne dama yor alal mhm. awma lu dul benn ñetti million mhm. yor naay mbokk yoo xam ne mhm. xiif nañ lool ñiy feebar nañ mënuñoo faj ndax man dem màkk farata la ci man jamono jooju waaw euh, waxuma la sax mbokk yu sori de mbokk yu jege laa wax waaw ah, kay question bu xóot la tey bu bu yaatu dem màkka dana doon farata ci yow ndax du rot cib jullit bu fekkee daa wér te am ko te man ko ca dem nga waaye la des ca alal ja la àqi say mbokk nekk bu fekkonte ne nag boo dépensé alal ji day jeex takk sa mbokk mi nar dee deeku xiif moom day am ci àqi alal ji loo xam ne dañ dañuy wàññi alal ji jox ko ba ba ngay mën a dem màkka nga am nga wut lu ko remplir kon xanaa loolu mooy wa ati dal qurba ah, kay su boobaa bi ci des mooy suturaal ko ndeysaan surtout jamono juntool nga xam ne média la mhm. kenn ku ne yaa ngi xëy yor sab téléphone ne siiwa gis ku wax aw tojaange ba nga jël ko tasaare ko tasaare ko dugal ko ci YouTube ba dugal ko ca WhatsApp ya kenn ku nekk naan fu loola xewe nga joxe adresse yu leer nañ yàqub der mënta féete lool. dëgg la. léegi daa bari. dëgg la wala wéet ak nit mu wala nga enregistré. appel ko lépp nga envoyé ko keneen envoyé ko keneen. loolu xët ku sirr la. dëgg la mooy xotti secret. dëgg la Sëñ Tuubaa waxoon na ko. wadkur maxaasina ma fihim isa dukiru. Mm. wala taib ahadan minhum waxal la nit ka le buñ ne diw waaye bul ayibal mukk li ci diw mhm. daa dina nag ah na xam ne nag feeg yaa ngi xotti suutarëy nit mm. bu deew làmmiñ wenn nga ci am mhm. te nit ñi am nañ junniy làmmiñ mooy lisaanu ko joojee lisaanaka laa tadkur bihi awra tamri in fa indaka wa linnaasi alsun nit wa in absarat aynaaka ayban fa qul fala tabsuri yaa aynu linnaasi ayunu allahu ko sa làmmiñ wi bu ci wax kenn lu ñaaw mm-hmm. ndax wenn làmmiñ nga koy waxee te ñëpp mën nañ laa sot sotoo te buñ la sotoo xajuñ ci sa bët bi mm-hmm. bu ci xoolal kenn lu ñaaw mm-hmm. ñaari bët nga am te bu la ñeenti nit xoolee juróom benni bët la xool. waaw yaa ma ne woon de ñetti yot boobu buñ toj mu daanu. <laughs> boobu mu dal mu toj maa la ko wax. <laughs> kon bokk na ca suturaal. Mm-hmm. suturaal nag mooy lan bokkut ak tuumaal. Mm. tuuma moom loo xamut la. suturaal nag da nga koo gis ba noppi teg sa tànk. te wa man satara musliman satarahu llaahu yawmal dëgg la léegi suturaal googu. Mm-hmm. bi nga gisee li nga gis. Mm-hmm. nga suturaal ko nëbb ko ci nga doone jàmbaar waaw ki gisul lu lu daa foog nag moom dem di dem di wisaare kooku nu mu war a tudd Cheikh Omar. ah Illaahi moom gisul dara moom. mooy li yàlla tëkku woon yéefari bi ñu nekkee Madina la in lam yantahi almunafiquuna ah. wal murjifuuna fi lmadinati illaa xalila illaa xalila xam ne mooy ñii lu ñu tumi nit ñi seen mbiri biir di ko tasaare ci biir waaw moo tax suñu borom yow man xiyaam nit dana ñëw fi ba ci moom hmm. mu ne ko yaa defoon nangam nangam de mu ne ko waaw. allahu akbar mu ne ko maag yi màkk na ko yëg mu ne ko yow dong mu ne ko jaaral fii dem. oh demal àjjana. oh waaye nag nit dana def itam bàkkaar ci kaw suuf. Mm-hmm. di reewantu di ko wax di ko jëri. Mm-hmm. ba nit ñëpp yëg ko bu sum borom ne ko taxawal fee yaa ko defoon yaa ko siiwal. yow mi siiwal sa bopp rek taxawal ma siiwal la. Hmm. moo tax ñu ne. sun borom dana suturaal feeg yéen a ngi suturaal. nit daa war a suturaal boppam waaye nit daa war a suturaal mbokkam. Mhm. loolu bokk na ci àq yi nga xam ne dana dox diggante nit ki ak moroomum nitam. Mhm. hadiyante muy dimbale nit yëkkati kado jox ko. Mhm. moo xam ak feet la moo xam loo bëgg a defal nit te yàlla tax rek la. dafa am lu ñu tuddee ñaari tomb rek laa la ciy andil. dafa am góor gu mag di jàngale kat bu mag. toog ci xalqa bi muy jàngalee benn waay wut ab butéel peinture ko peinture arsante bii mhm. dem ca teen ba root ca ndox tëj butéel bi daal koy def ci am mbuus mu rafet ñëw ne ko bàyyi diw daal lii mhm. yow rek yaa ko yoyoo dama laa siyaare si woon mu ne ko a ah, waaw kóora waay jërëjëf waay yow kat sa lii kat am na solo kat mhm. da koy jaay mu ne ko waaw moom day <laughs> mën nga ko jël ci bon prix rek góor gi daal di yëkkati cinquante mille jox ko. ne ma doole mu ne ko da doy na. daal di jóg dem bàyyi doom ji ne ko bàyyi butéelu butéel bi mu jënd fukki dërëm lay jar. Mhm. poto absanté bi mu ciy def cinq cent franc lay jar muy cinq cent cinquante. Mhm. mbuusu toile bi mu ko ëmbee. Mhm. juróomi dërëm la. muy cinq quinze. nga jox ko ci cinquante mille. mu ne ko doom. jëbrul a tax ma def ko. jabrul xawaatir nag bokk yi mooy lan mm-hmm. da xam kii li muy dund mm-hmm. nga bëgg koo jàppale te kenn du xam li nga koy jàppale mooy jabrul xawaatir waaw akbar mu ne ko li tax ma jox ko ko cinquante mille mooy problème am parce que bi may bëggee dolli ci cinquante mille daa bañ te xam na ne biteel bi mu ma jaay du jar cinquante mille mais xam na li ma ko defal mm-hmm. ne ko doom nag yow fi na ngaa yaakaar ne affaire bi technique la ak muus mu naa mu ne ko adduna du noonu njëriñ njëriñ la njëriñ doguma la Serigne Touba ci ne kenn lay yonent bi mës a fanaanoo ba fajar di ko ñaan ngir njëriñ Ousmane ibn Affan baata nabiyu ila fajrin yad'u Ousmane ibn Affan ridan min arrahmani la hmm. tafdilu ko baaru ok sëriñ bi sëriñ kon kon bokk na ci àqi dëkkandoo jëriñ sa mbokkum jullit sa mbokkum jullit jërëjëf léegi nag kooku hmm. noonu la ko góor gi tontoo ne ko doom hmm. gënoo maa xam li ci dëkk bi gënoo maa xam lim def waaye dama laa gën a xam lim bëgg te man rek maa ko am te ñëw ne may ma léegi li mu bëgg dugg mooy dominu njaay ne dama lay jaay yow mi jënd nag jëndoo li muy jaay mais danga ngaa jënd itteem ci oh mooy al ihda tomb ba ca des dafa am ku toog ni rëdd ay rëddam mm-hmm. daan ne ajana ji ti ñaar lay jar jeneen mm-hmm. ajana ji ñeenti téeméer lay jar jeneen ajana ji junni lay jar yor ab bantam di tomb ci rëdd yi as soxna toll fa ne ko ana ajana ji jar ñeenti téeméer mu ko ji mu daal di génnee ñeenti téeméer jox ko mu ne ko am nga ajana daal di ñibbi soxna si ba mu demee ba guddi ñu feeñu ko ne ko lu wér la la wax am nga aljanna ci ñeenti téeméer mu xëy li ko jëkkër ji jëkkër ji ne ko nañ dem ma jëndi mu ànd waaxu ba agsi ci waa fekk mu rëdd ay rëddam jëkkër ji ne ko ana ajana ji jar ñeent téeméer mu ne ko fi ajana du jar ñeenti téeméer ah sama soxna jënd fi démb àjjanay ñeenti mën na ko déedéet sa soxna sama soxla la jënd ma jox ko àjjanay ñeenti la fi tax a ñëw du ma la jox àjjanay ñeenti téeméer jabrul xawaatar nga xam ne li mu bëgg ci biiram la xam la xam mu jaare ko foofa mu jaare ko foofa macha allah nitu intérêt nag day ñëw mm-hmm. même bu doon joxe addi yi sax addi yi intérêt lay joxe mm-hmm. fekk addi yi da ko war a jox ki nga koy jox mm-hmm. xam ne aajoom moo toll foofu ay soxlaam moo toll foofu te na xam ne kii ñaan nit day tànq ndoxum xar kanamam di ko ko jox te as gor wër ndoxum xar kanam. Oh. nga fegul ko ñaan gi jox ko may ko ba noppi te ñaanu la moo gën. sëñ Maxtaar li nga wax li nga wax li ci mën a dafa bari. ok su boobaa nag mhm. yooyu mooy yi nga xam ne. Mhm. bu ëllëgatee yowmal xiyaam. Mhm. buñ ko tegee ca balaas ya mooy diis. afqalu ma yuudaw. fil mizaani yowmal qiyaamati alxuluqul xasan. li gën a diis ci li ñu teg balance yowmal xiyaam mooy jikko ju rafet jikko ju rafet mooy tomb yi ma la wax mhm. dimbali nit ki ci fekk ci ay situation yim nekkee mhm. nga comprendre ko ca ba noppi tegu ko ca benn intérêt chantage ko mhm. nga yëkkati dara jox ko ngir yàlla mu xam nga xam oh. loolu bis bu ñu ko tegee ci balance da ngay dégg mu ne kéng wallahi alazim wallahi alazim gis nit koo xam ne dafa sévère waxagu la dara nga ne ko baa suñ baa jàmm la fexe ba xam lim nekkee nga ne ko waaw kañ dama boole ak sama benn xarit dana ko régler mooy yonent bi sax nee na ku dox ci aajo yi nit dox la wax de nga xam ne mënoo ko. Mhm. mais da nga ànd moom ci sa oto. da nga ànd ak moom jël oto da ngeen ànd moom ci sa fas da ngeen ànd moom di dox. bu ëllëgee ki si biir jéego yooyu nga doon jéegi dañ koy tiiri ki siraat muy distance bu soree soree sore mhm. ku fekk sa moroomum jullit amut lu mu sol. Mhm. nga dem xotti tissu yu rafet na ko damaa bëggoon ñu niroole maag yow tey xoolal bu jooju wax ju rafet. ne wa ko am solo lii laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal ada man mooy dogon ko nag man mhm. ada mooy nga teg ko ci lu mu mënut déedéet dama waay bëgg nga ñëw sa sama kër tay ñu ñëw ñu taal oto bi damaa bëgg ñu niroole ab tisi yow maag yow dañoo nangam nga kafa kaf ba jox ko tisi bi ma sëñ bi lii na nga ne ko waaye cent mille ngi nii amul problème def ko sa poos rek itam sa mbubb mu rafet mi boo ko solee da ngaa war a am tuuti xaalis mhm. lépp sarax la mhm. waaye nag tuddul sarax ndax li ngay bañ mooy manqué ndoxum xar kanamu ki ngay waxal gindi dignité am gindi ngorom gindi personnalité am yooyu yëpp nga xam ne ay jikko la ci doomu aadama waaw nga fexe ba mu téye ko nga fexe ba mu téye ko soxlaam te manqué wul dara mhm. laajkat bi moom ndoxum xar kanamam lay tànk jox la nga jox ko alal allahu akbar moo tax laaj metti dëgg la moo tax benn borom xam-xam nee na mhm. lu metti metti laajee a metti joxe am na mën naa yëg boppam ci maa la jox kii laaj nag amul tam musta mën a yëg boppam ci damay laaj. oh. loolu la ñuy wax jabrul xawaatir. wallaahi al jabrul xawaatir dëgg la. <laughs> ñu ñëw ci deuxième temps jërëjëf Serigne Makhtar. sëñ Makhtar waxtaan wi bugguñu woon mu arrêté ndax mhm. solo gi mu am solo mhm. te li ma leer mooy man mii koy laaj ni ma ci jëriñoo mhm. insha allahu taala ñi koy seetaan noonu lañ ci jëriñoo sëñ Makhtar aqul jaar yëg nañ ci ne thème bu yaatooy yaatu la boo xam ne fiñ ko teg weesu na foofu bi may tëj rek mooy sëñ Makhtar nga xam ne phénomène la tey ah. man mi nga xam ne damaa dëkk ci koñ. baare koñ ba. waaye ci turu diine laa ko baaree. moo xam damay conférence moo xam damay cant moo xam damay safar moo xam lu ma mën a def. est-ce que waruma bàyyi xel ña ma dëkkal ci koñ ba ndax ñu dul ñuy jullite nga fa ñu dul jullite nga fa. ñu ma bokkal ngëm-ngëm ma nga fa ñu ma bokkalul ngëm-ngëm ma nga fa. nii ñu nii ñu nii nga ñu jàngalee aqi dëkkandoo ak sew gi mu sew ak suñu borom bàyyi gi ko bàyyi xel tey boo ma doon jox conseil man mii tey damaa am manifestation wala damaa am ndaje moo bëgg a def waaye koñ bi am nañu fi feebar te xaw ma leen loolu tey noo koy jàngate sëñ Omar jërëjëf laaj bu am solo su al waji yonent bi saasalam daf ne lor des koo war a tuxale ci yoon waaye war su ko indi ci yoon imaatatul adha an tariq nga fekk lor ci kaw yoon mhm. nga dindi ko moo xam ab bant la moo xam aw doj la moo xam luy gaañe la lu moo lumu nga dindi ko dafa bokk ci li nga xam ne ëllëg day sippi ay bakkaar yawmal qiyaam waaye nag andi fa lor tam nag lu toll ne dindig lor ja nam amee woon doole ci njariñ la mhm. andi fa lor loolu lay amee doole ci lor ji hmm. moo tax yi nga wax damaa ci doole yu bari mhm. gas ab fonce perdu ci kaw yoon lor mënu koo féete ko sëñ Omar. allahu boobu sax moo gën a danger bâche bi ndax bâche bi xam nga ne suba lañ koy dindi. Mhm. wala balaa jant bee soo ñu dindi ko. Mhm. gas ab fonce gis naa camion boo xam ne trente tonnes la. def trente tonnes ciment. di arrière war koo wàccee ñaari tànk yi nga xam ne mooy tànk tànk waxuma tank kam kii bi de. ndax bu bu fekkoonte ne tànk kees gi la. Mhm. mën ngaa lonki waago bi. jëmmi eh, eh, bopp bi. ñaari tànk yi ne ci digg bi nga xam ne moo mooy commandé bopp bi. Mm-hmm. moo dugg ca fonce boobee. Oh. am na fa presque weer. nga xam ne ka ko ah. gas ka ko gasoon ko fa indi. waaw ka ko gas. da koo mm-hmm. gas def ca lam cay def. borom camion ba jaar fa mu tàbbi ca. Oh. am na fa weer ndax li ko waral mooy. 30 tonnes bi moom buñ ko wàccee fii du fi jamonoy nawet la teg ca. mu ne su ta wàccee ndax dañ ko baase léegi nu ñuy def tracteur bu ne ñoddi na ko mu bañ. benn ngoog mhm. gas fonds perdu mhm. ba ca des mooy waxuma fonds perdu bi fi ne mhm. nga jël fa benn nga nga bàyyi fonds perdu bi muy wal ndox mi di dem ci mbedd mi xanaa xam ne fonds perdu ya ca nekk la ca gën a wayaf mooy am sangiit dëgg la am sangiit al takk fii dégg nañ la bu baax lu nekk nga ca dëgg la jigéen ju eh, régalam jeexoon sax ndox moomu dana ci am participation parce que fa ko sangoo nga bàyyi ko ci yoon nit teg ca tànkam maar day taali nga xam ne yu bëree bëri la dajale ak mënu ko passé kooku lépp ay adaa la moo tax yonent bi saa salaam woon bi ci gën a néew jigéen mën na ko gone mën na ko mooy nga fegu sa lor ci allahu akbar ba ca gën a kawe nag maga ko man mhm. mooy nga jëriñ nit ñi mhm. moo tax ñu ne na nga fexe ba jëriñ ñëpp na nga fexe ba jëriñ ñëpp doon ab julit mu ko su ma ko mën na mu ne kon bul bul lor kenn jëre ñëpp yombul waaye bañ a lor kenn moom <laughs> kenn ku ne mën nga ko du alal mu ne ko bul na nga jëriñ ñëpp mu ne ko su ma ko mënul nag mu ne ko nga bañ a lor kenn jëriñ ñëpp alal la koy def nga ne awma alal ay moral la koy def ay maanawiyaat nga ne awma awma ko mënuma masla ñu ne kon sa bopp islam ku téye boppam la bëgg dëgg la yooyu nga xam ne ay gàllankoor la mhm. moo xam na baas ca mbedd mhm. moo xam na nga gasum pax moo xam na nga faa def fonds perdu moo moo xam na nga faa def canal boo xam ne ma ngay jógee ca sobe sa di sotti ñu baree bari ci nit ñi bu tawee ba sévère dañuy gaaw ubbi seeni fonds ngir mu versé ji ca mbedd ma ànd ak ànd ak ndox moomu pourtant ndox moomu na nga xam ne set na bu fekkonte ne kenn laalu ko mënees na caa jàpp waaye bu ca fonce sottee nag waxuma la ñàkk a set mais sobee ca nekk damaa jëlee sobe mais ay microbe ñoo ci nekk ndax douche boobu li ñëw ci lépp dafa évacué dem ci dem ci ndox mi loolu nag lañ wax ne dana gàllankoor nit fii ci àdduna balaa yowmal xiyaam bari na ak ñàkk wërsëg bari na ak malchance bari na ay jafe-jafe bari na ay tiitaange yu nit kiy tiit bari na ay jànkonte yu muy jànkonte mi ngi jóge ci mbokkum julitam mu mu lor moo tax yonent bi saa ne julit bi mi ngi ci gra ci indépendance mi ngi ci xol bu yaatu mi ngi ci ak yëgam di di dund normal li feeg yanuwul dereeti ab julit mhm. li feeg lorul dëkkandoom waaye saa yoo xamee ne rey na ab jullit ba yenu dereetam mbaa mu tooñ ab dëkkandoom ba xolam tàng loolu day répété waat ci mu jullit bi ak i xelam ak i moraalam. Mhm. moo tax léeg-léeg nga gis ko am lu dul jeex di firfiree kat toñ toñi wallaahi nga gis ko amul dara. Mhm. tëdd sant bu amee attaaya sax bu suukar sa manqué buñ ko mayee suukar mu yaakaar ne moom moom adduna bi. alaa bi dikrillahi tatma'innul qulub looloy alxanaatu kanzun laa yaf naa jërëjëf sëriñ Makhtar Kebe Cheikh Saliou Mbacké thème bi am na solo trop muy àq dëkkandoo bugguñu woon mu jeex ndax solo gu mu am solo mbokk yi seen émission yaru ak yare ngi noonu di leen ñaan rek ngeen topp ko sëriñ Makhtar ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla guddal sa fan yàlla sàmm la yàlla aar la may la jàmm may la xéewal may la sutura yaak sa njaboot yëpp nag ak mboolem ku la ko yéenee mbokk yi di gërëm suñu technicien sëriñ Moustapha Sarr mi nga xam ne moom moo féetewoo ci wàllu digital bi ak wàllu montage beeg yëpp rek fàttewuñ kilifa gi nga xam ne moo fexe ba émission yi di jàll muy directeur général C3S muy El Hadj Serigne Seck ak mbooleem ñu koy jàppale ci liggéey bi Cheikh Mouhamadul Fadil Serigne Dame Touré waaye di nuyu waa yaatal mbindum alquran ca euh, njiital commission ba muy euh, al imam Serigne Khadim Ndiaye fàttewuñ borom xam-xam ya fa nekk yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw soxna maam Awa Dem ñu ngi lay nuyu ca ca Poroxaan nga xam ne moo jiite cellule. comité scientifique gu jigéen ñi lépp di benn kuréel waaye euh, xam ngeen ne concours bi yaatu na ba jigéen ñi bokk ci mbooleem lu ci aju rek moom moo ko fa yor di gërëm bu baax it mboolem ñi nga xam ne ñi ngi topp émission bi di yaru ak yare kon sëñ Maxtaar yaakaar naa balaa ñu yëkkati jotaay bi ana yéen kàddu ngay yëkkati xanaa lépp bëgg a defar in uridu illa lislaaha yonent yàlla Shuayb bu moo ko waxoon nitam ñi bañ ko ne dangaa bëgg suñ commerce gi bañ a jar dangaa bëgg suñu économique bu daan mu ne déggu leen li ma wax in uridu illa lislaaha mastataatu feeg maa ngi koy man damay defar diine nag laa biire la laa biire nag bu taxawee diine taxaw dimbale diine la kon li ñuy wax akus néew du xam-xam bu ëpp kenn waaye xëy na ñoo gën a jekku nit ñi palaato bi lépp luñ ci wax itam ngir yàlla ak bëgg a jub tàmbale ko suñu bopp fabda bi nafsika wanha an ghayyiha fa ida ntaat hanu fa anta hakimu ba ca des nag mooy ak képp koo xam ne mi ngi koy dégg te jariñoo ko bàyyi wuñu ñi ngay lim ñëpp ak ñi nga limut ittiwa guñ ittiwa émission bi ak soññi la ci noonu takat olof njaay nee na ñett ñi dañ leen di soññi mbaa duñu dem genn gilin cib taal danga koy soññ boo ko boo ko boo ko xamañul rek du tàkk genn gone cib tool da nga koy soññ su loolu mu dem tëdd ca ker ga menn mbaam ci yoon danga koy soññ soo ko soññul mu taxaw kon yéen ñi nga xam ne yéen a di ñu contrôler dañu ñu soññi mooy ñi nga xam ne itte woon nañ émission bi di ci dugal seen xalaat yu rafet bàyyiwuñ ca kenn nag xeebuñ ci yét benn xalaat ci góor ak jigéen mag ak ndaw seen mbokk seen xarit Muxtaar Kébé Cheikh Saliou Mbacké wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Serigne Makhtar bég nañ lool émission bi rafet na rafet na am na solo tey euh, jàngat nga ci point yu ama am solo yoo xam ne dana dana dana soxal société bi waaye dana soxal képp kuy jullit mais képp kuy doomi réew mi même boodul jullit émission bi déglu ko rek day gën a yokkaat sa citoyenneté mais day gën a yokkaat sa patriotisme xam ne da ngaa war a jëriñee mais da ngaa war a jëriñu waroo lore mais waruñ laa lor te lépp loo xam ne jàpp nga ne bu jógee ci yow dem ci penc mi da koy lor war nga ko watandiku mbokk yi loolu émission bi nga xam ne moom lañ leen amaloon ki doon ànd ak yéen seen mbokkum daara al oustaz Omar Sylla wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmani rahim. fastamsik billadi uuxiya ilayka innaka calaa siraatin mustaqim. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون